taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet wër seen kër yi taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet wër seen kër yi taal fire fire na fépp tàkk jëppeet murder murder ba Macky daw waxeet fire fire na fépp tàkk jëppeet murder murder ba Macky daw waxeet briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal fire fire murder murder briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet wër seen kër yi taal briquet almet pneu essence taal briquet almet këpp seen oto yi taal briquet almet pneu essence taal represent represent yo Mbacké what's we do it for real yeah respect à Mbacké akasa akasa ayca na tàkk na tàkk na tàkk résistance résistance ayca guys ayca guys let's boy na boy na boy briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu wër seen kër yi taal briquet almet pneu essence taal briquet almet wër seen kër yi taal briquet almet pneu essence taal briquet almet fire fire ne fépp tàkk jëppeet murder murder ba ma ki daw waqeet fire fire. If you put up your bed, murder, murder. Almet, put a essence down back Almet, put a essence down back Almet, put a essence Resistance, guys. Yeah, what's up, Mbake? Yeah, respect, respect. Yeah, check, respect to all effect, Mbake. You know, resistance, resistance, guys. Yeah. tasaaroo tasaaroo tasaaroo tasaaroo ci koñ yi guys ayca tasaaroo leen ci koñ yi embuscade embuscade embuscade briquet almec pneu essence taal briquet almec pneu essence taal mbàkke briquet almec pneu essence taal tasaaroo tasaaroo bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc guys bloc bloc bloc yee ñu nekk ci ginnaaw buñ sànni ñu nekk ci ginnaaw buñ sànni day dal ñu nekk ci kanam bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc par bloc bloc par bloc guys bloc par bloc koñ ba koñ koñ ba koñ gox ba gox on encercle guys on encercle koñ ba koñ gox ba gox bloc bloc bloc bloc bloc ñu nekk ci ginnaaw bu ñu sànni ñu nekk ci ginnaaw bu ñu sànni day dal ñu nekk ci kanam yee guys bloc koñ ba koñ gox ba gox tasaaroo tasaaroo embuscade coy yi ay ca ay ca bu loxo yi vide ñaari loxo ñaari xeer guys ñaari loxo ñaari xeer let's go guys briquet ay ca ay ca ay ca ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer bu leen daw bu leen daw bu leen daw bu leen daw da leen daw latéralement latéralement bu leen daw ci digg bi hee Mbàkke bu leen daw ci digg bi boo leen di daw bu leen daw nii da leen daw di xoolaale di xoolaale yee guys ñaari loxo ñaari xeer boo leen di daw latéralement ngeen war a demee latéralement sës leen ko ci wetu kër yi boo leen di daw bu leen daw ci digg bi da leen daw di féetewoo ci côté kër yi côté kër yi ok guys yee bu leen duggu ci kër nag bu leen dugg ci kër parce que boo leen duggee ci kër bu ñu ñëwee mën leen loxoti les go let's go koñ ba koñ koñ ba koñ gox ba gox xeex dañ koy mën bu leen daw ci digg bi bu leen daw ci digg bi oto bi mu ñëwee day yegg si ci yow booy daw bu dugg ci kër mbappul mbappul mbappul jàdd ci koñ yi daw leen latéralement guys latéralement koñ ba koñ koñ ba koñ gox ba gox tasaaroo ci koñ yi ay ca ne tasaaroo bu leen dajaloo tasaaroo boo leen dajaloo bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc bloc il faut mu am kenn kuy wax il faut mu am kenn kuy ci ful bi il faut ñu improviser benn maanaam leader buy wax ci ful bi il faut ngeen di il faut une communication guys Mbacké il faut qu'il y une communication il faut kenn ñu improviser ko mu retrouver ci ful bi di wax ak bi il faut mu leen di wax ayca bloc bloc bloc bloc bloc ñu tasaaroo ayca yegg si il faut ngeen improviser guys il faut bloc bu nekk maanaam mbaboor bu nekk ful nekk il faut mu am benn leader buy wax ak ñoom attaque arrière repli tasaaroo il faut mu am kuy wax il faut mu am kuy wax ñëpp di dégg ful la ful la il faut mu am kuy wax let's go Mbacké let's go let's go mi ngi nice mi ngi nice mi ngi nice briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal fire fire ne fépp tàkk jëppeet murder murder ba Macky daw waqeet fire fire ne fépp tàkk jëppeet murder murder ba Macky daw waqeet briquet almet pneu essence taal gaz briquet almet pneu essence taal Mbacké briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal Mbacké let's go Mbacké respect respect respect respect ay cë ñaari loxo ñaari xeer bu loxo yi vide ñaari loxo ñaari xeeru raay xeeru raay mbàkke am na raay mbàkke am na xeer xeeru raay ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer ayca ayca ayca ayca bloc bloc bloc ñu wër coy yi ñu wër coy yi ñu wër coy waxal il faut mu am communication gars il faut mu am communication il faut mu am communication créer leen leader ci biir foule yi ci biir foule yi c'est des ay leader yu mën a taxaw di wax oh nañ songu nañ arrière tasaaroo ayca ayca guys Mbacké respect yeah on commence à révolution à Mbacké guys respect one love Mbacké di di bëggee combattant yëpp ñu nekk Mbacké yeah dama kontaan ayca ayca ayca dañuy xeex amul ndeysaan amul ndeysaan amul woyaayoo yi let's go guys yeah man ayca nañ yëkkati drapeau bi de la révolution le drapeau de la révolution vive la révolution vive la résistance Macky daf fiy jóge by by force by force the revolution will not be televised the revolution will not be televised ayca ayca Mbacké yeah briquet almet briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet wër seen kër yi taal briquet almet pneu essence taal briquet almet wër seen kër yi taal fire fire ne fait pour tàkk jëppeet murder murder ne fait pour tàkk jëppeet fire fire ne fait pour tàkk jëppeet murder murder ba ma ki daw waqeet yeah guys yeah I love Mbacké man I love I love you man maa ngi mel ni ku nekk foofu billaay sama xol dafa sedd yeah libérez le peuple Mbacké acca acca acca vous êtes les pères fondateurs de la révolution sénégalaise Mbacké yeah les habitants de Mbacké ay jàmbaar lañu jërëjëf ak saa yàlla leen yàlla fay jaaraama Mbacké Mbacké Bari fa la Serigne Touba tàmbalee sigil ngeen ko de sagal ngeen ko suturaal ngeen ko ak saa jërëjëf Baye Fall yi ayca ayca patriote de Mbacké ay ca wane leen de ñu ngi seen ginnaaw we love Mbacké yeah I got love and respect for the people from Mbacké yow ay ca un briquet almet almet pneu essence taal briquet almet wër seen kër yi taal briquet almet pneu essence taal briquet yi taal briquet almet briquet almet mbake pëna pëna pëna pëna pëna ayca bu leen daw noonu bu leen daw noonu bu leen daw noonu daw dafa am secret doo ñëw rek daw ginnaaw il faut nga xam li lay dopp il faut nga xam li lay dàqe mbake maa ngi suivre action yi boo leen di daw bu leen tourner rek di daw bàyyi leen loxo neen kenn du xeexee loxo neen for leen xeer ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer guys ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer kenn du def nii kenn du def nii ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer ñaari loxo ñaari xeer boo leen di daw daw leen latéralement latéralement ci wetu ci wetu kër yi latéralement bu leen daw ci digg bi ci wetu kër yi nga xam ne jàddu koñ day yomb jàddu koñ day yomb jàddu koñ bi day yomb boo dawee ci digg bi day metti pour nga pour nga mun a jàddu koñ ok guys bu ñuy daw bu ñu daw ci digg bi nañ daw latéralement takkaloo kër yi aux abords des maisons foofu noonu la ñuy dawee bul mus a daw ci digg bi oto bi day yomb ci yow loolu da ngay dawee koñ koñ ci ci cat ci cat gi ci buntu kër yi ngay dawee bul dugg ci kër bul dugg ci kër ok guys bul dugg ci kër encore une fois bu leen ko fàtte bu leen dugg ci kër bu leen daw ba dugg ci kër da ngeen di yomb a génne da ngeen di yomb a génne bu leen daw dugg ci kër yi boo leen di daw da ngeen di daw latéralement mel ni kuy nekk ci kër yi nga xam ne jàdd bi day yomb boo jàddee rek rëcc nga parce que oto bi du jàdd boo jàddee rek rëcc te boo jàddee bul daw boo jàddee da ngay taxaw boo taxawee ñaari xeer yi nga yor moom ngay bombardé ok kon chaque jour booy daw teel ñaari xeer foo toll yoral ñaari xeer boo dawee latéralement boo jàddee bul dem boo jàddee da ngay taxaw parce que oto bi du jàdd oto bi day continuer boo taxawee ci nga na a sa xeer yi foraat boo largee benn xeer largee beneen xeer foraatal ok guys yee nañ dem Mbacke nañ dem let's go man yu love you brother jaajëf Mbacke jaajëf Mbacke jaajëf Mbacke jaajëf akasa Mbacke akasa Mbacke ah jërëjëf kontaan ci yéen de kontaan naa trop billaahi wallaahi xeex da nga koy nuru heure bi heure bi dakaar sax waru loon taxaw heure bi Dakar waru loon taxaw heure bi nii nii ni nii coy yëpp waxoon naa leen ko démb yóbbu nañ leen Mbacke démb waxoon naa leen ko nee naa leen Macky Sall tàppet la ragal la buuxat la il faut ñu taxaw il faut ñu nangu xeex ak moom waxoon naa leen encore une fois ne la lépp li nga xam ne mooy LG yi mbaaw yóbbu nañ ko fa seen blende yi ñi ngi ko jënde blende yi ngeen di gis nii ñi ko jëndee Israël ne woon naa la ay blende yoo xam ne la boo leen tëggoon brique sax du toj c'est des blende yoo xam ne Israël la ko Macky Sall jëndee ñoom ñooy def euh, intifada bi ñoom ak waa Palestine mais palestiniens yi ñoom xam nañ oto yi gis ngeen ni ñuy xeexee ñoom du duñu arrière ñu daw duñu deltu ginnaaw kon nañ xeexee comme les israéliens comme Macky Sall indil nañu ay ay voiture blindée yu nga xam ne ay char blindé yu mu jëlee Israël donc il faut ñu xeex ak ñoom comme ay palestiniens buñ ko fàtte encore nañ xeex ak ñoom comme des palestiniens xeer yi buñ ko fàtte ñaari loxo ñaari xeer bu ñuy daw latéralement bu ñuy daw tamit dañuy bàyyi xel duñu daw rek nii nii nii tëjëx tëjëxi xamuñu fan la oto bi toll donc da ngay daw latéralement oto bi du ñëw ci wetu kër gi lu tax ñu daw latéralement mooy oto bi du ñëw ci kër gi oto bi ci digg bi rek la mun a jaar léegi nag yow boo nekkee ci digg bi di daw oto bi pour mu mbëkk la wala pour mu for la day yomb donc da ngeen di daw latéralement maanaam da ngeen di daw mel ni kuy dugg ci biir kër yi fekk dugg leen ci biir kër parce que du mun a ñëwee noonu du mun a wàcc bu wàccee day du mun a kon day arriéraat donc boo leen di daw day leen daw latéralement te boo leen di daw tam bu leen tëñëx tëñëxi nii latéralement day yomb pour nga jàdd ci koñ boo jàdd ci koñ bul continuer di daw taxawal ak say ñaari xeer oto bi buy romb nga largué sa premier xeer largué sa deuxième xeer euh, rootaat yeneen ñaari xeer chaque jour saa yoo largué premier xeer largué deuxième xeer foraatal ñaar moom mooy nga armé waat encore taxaw noonu ngeen koy def noonu la ñuy xeexee ok guys donc comprenez leen ko noonu ñu continuer xeex bi incha allah Macky Sall mënu fi nekk di semer terreur di jàpp dëkk bi di leen tëj ci kaso yi di rey di empoisonné di emprisonné ba pare bëgg a nekk ci dëkk bi nga def ñuy jaay doole di génn def ay bambula politique dem ay Thiès taxawaalu fa jël des milliards et jox ko askan wa jënd leen nax leen di leen foowee ñun ñu toog di seetaan une patrie se compose de morts qui la fondent et de vivants qui la continuent let's go guys let's go guys let's guys lu ma leen wax chaque jour dal ci bàyyi xel gis nga tey suba bu ma leen gisee ñu ne Macky Sall accepté na ko man xamoon naa ni Macky Sall mënul jël lu mel ni gendarmerie yi nekk biir ndakaaru yëpp yónni leen ñu war a dem xeex ji démb ma gis contingent bi ñu yónni leen ñu dem xeex yi mu ñu yeewu suba ne accepté nañ ko man xamoon naa ni c'est bien stratégie la kon kon xeex bi xeexu stratégie la nu ma leen di comprendre noonu ci seen xeex ci di ngeen di doxalee noonu ngeen war am idéologie yéen tamit yéegal seen niveau ci xeex bi comprendre ni man ci xeex bi laa nekk gënu leen ma nekk ci xeex bi gënu leen ma bëgg xeex bi xeex bu may xeex xamu leen ko tollugu leen fa da ngeen may accepter loolu ngeen wala ngeen fàtte ma rek seetaan ma comme ni ko bëggee fàtte leen ma seetaan leen que man maa ngi ci xeex bi te ni ma ci nekkee waxuma kenn nga ñëw tolloog man ci xeex bi waaye maa ngi leen di comprendre parce que démb bu ma gisee ñoom arrêté kii bu ñu def euh, lu mu tuddati bu bu commandant bi def lettre bu commandant bi def ak kii nga xam ni euh, euh, lu mu tuddati Moussa Fall bu mu def jox ko LGI Mbaaw ñu yenu seen blindé yóbbu dem dem jóge Dakar ak ak yeneen région yi ñu dem Mbacké rejoindre Mbacké ak ki nga xam ni mooy Bokar yàgg moom tam lettre bu mu def bu mu ko gisee ñu oto yooyu yëpp biig si guddi ñu dem départ dem Mbàkke bu ma yeewoo suba gis ñu naan ay accepté nañ ko man xamoon naa ni mënuñu ko accepté parce que Macky Sall mënul yanu lu mel ni ay contingent yóbbu ko Mbàkke ba pare wax wax ko Bokar Yàgg wax ko Moussa Fall ñu yóbbu ay contingent ñu yeewu suba ay conseil constitutionnel xaw ma conseil de lan accepté ko man xamoon naa ni kon donc loolu du dëgg mais stratégie la boo xam ni Pastef waa Pastef ñoo ko def pour mun a contourner gars yi à ce que ñu dem et pourtant mënoon naa génne leen c'est pas vrai accepté wuñ combat bi mais dama comprendre stratégie bi ngeen joué ak ñoom pour mun a pousser la foule ou bien le peuple sénégalais à sortir moo tax man dem génnuma pour fen loo leen wala pour wax ne lii du dëgg mais parce que ñun ñoo bokk combat bi il faut ñuy nantante xeexu moyen la xeexu science la il faut ñuy battre bu ñu battre da ngeen di mën a coupe lu ñu battre da ngeen di mën a coupe kon bu ñu battre da ngeen koy mën a coupe loolu dañuy xeex dañuy xeex il ñu focus il faut ñu concentrer wu bañ demee émotion bañ a demee tëll ma rajax xeex la xeex stratégie la xeex ay lépp ci mind lay dox mindset la kon bu ñu tëñëx tëñëxi dañ soxla ay patriotes yu taxaw ay patriotes yu déterminé wu ay patriotes yu yeewu ay patriotes yoo xam ne dañuy comprendre seen morom patriotes yi au front bu ñu dem lan lañ fay jëli ak lan moo leen tax def lii loolu bi dañ koy comprendre te loolu moo indi patriotisme mais man ni ma leen di comprendre doole ma comprendre noonu et pourtant bu ma gisee lettres yooyu xamoon naa ni Macky Sall du accepter mukk mukk à la du du nekk du tàppet la du nekk kuy plié wu pour nangu loolu noonu nga xam ne mooy Ousmane ko pour mu def li nga xam ne moom mooy meeting bi tey man xamoon naa ko nant naa ko ndax naa sama frère bu nekk nii Mbàkke tey dafa dem Kaolack nga def ne day xaar xeex bi tey suba laa ko wax bu ma envoyé message bi dama ne ko xeex bi euh, gars yi accepté wuñ ko mu ne ma non gis naa ko ci internet ma ne ko non accepté wuñ ko loolu patriote ñoo ko def stratégie la yu patriote yi def pour mun a pousser foule bi ñu génn mais accepté wuñ ko mais du loo xam ne damay génn ci internet bi wax ko nit yi pour ndew leen ah non accepté ko day ragal loo nit yi donc da ngay noppi rek parce que stratégie la boo xam ne que yi ñoo ko def pour mun a pousser nit yi à ce que ñu génn loolu man nu may xamee seen stratégie xëy na yéen leen ma xamee sama stratégie mais nangul naa leen ko nee naa leen on va se retrouver tasaaroo leen fàtte leen ma on va se retrouver dans l'idéal un jour viendra dañuy retrouver wu encore sore man lan moo waraloon sama xeex lan moo waraloon samay stratégie lan moo waraloon samay pexe loolu lépp di ko xam suba incha allah nag suba la ñuy doon héros du tey tey nañu def xeet zéro nañu multiplier par zéro on s'en fout waa alien zéro alien zéro mais on s'en fout ñun de façon li ñuy xeex xam nañ ko fu ñu jóge xam nañ ko fu ñu jëm xam nañ ko te incha allah maa leen ko wax waxaat ko ko waxaat ko waxaat ko on aura une victoire final victoire bu rëy dinañ ko am ci xeex bi incha allah te kenn mënuñu ci dindi kenn mënuñu ci effacer ndax ñun yàlla def na ñu ngi dem au cerveau ci dans le cerveau de l'histoire fi ñuy jëlee ay décision di sat seen i kayit di indi di sàcc seen i stratégie di indi loolu lépp ñu ngi ci donc incha allah comme ni ma leen ko waxee dinaa leen indil encore le projet chinois bi Macky Sall def bi nga xam ni waa awaa xaw ma awa yi xaw ma awaa yi lañ koy waxee xaw ma mooy seen site seen seen marque yooyu marque boobu noonu euh, dinaa leen ko publier parce que page bi dafa bëri ci Macky Sall pexe yi mu def pour mun a taxaw di xeex ak ñun mi ngi tudd Smart Sénégal projet boobu Smart Sénégal Macky Sall dafa wax naa leen à part les de combat les blindés armés yooyu ñun waxuñu ko pour ragal parce que ñun ñëwuñu pour ragal Macky Sall tapet la buqat la ragal la n'est-ce pas donc dañ leen wax le Smart phase 2 bi Smart phase 3 bi lii lépp projet baa ngi nii c'est le projet Smart lii point kii la la la la la noté nii def ko en jaune donc lii lii projet bu rëy la bu Macky Sall def pour xeex ak ñun awee awee xaw ma xawaay xaw ma xaayaa man man moom yooyu euh, maîtriser ma ko bu baax vraiment technologie mi ngi nii lii lépp projet am la pour fas yéene xeex ak ñun lii lépp projet bi ci projet bi la bokk li nga xam da koo def bon donc duñ ko wax tey loolu après dinañ leen ko gën a de toute façon lépp li nga xam ne ñu ngi koy nas ci pexe pour xeex ñu pour toroxal ñu wala pour rey ñu wala pour dina di lépp dinañ leen ko tegal tegaluñ leen ko pour ngeen ragal mais dañ leen ko tegal pour ngeen préparer wu pour ñu contourner seen pexe mais tegaluñ leen ko pour ngeen daw wala ngeen ragal wala ku ragal na nga daw ku ñëme na taxaw loolu daal laa leen wax mais tegaluñ leen dara wala di leen wax dara pour ngeen nekk ay tappet wala ngeen tappete góor day dëgër mbaa mu sol string loolu lañ wax góor day ay ring ba doon king mbaa mu sol string donc le projet Awee Smart Sénégal dinañ leen indi lépp tegal leen ko fii ngeen comprendre Macky Sall milliards yu mu sàcc ci ñun jënd ko préparer ko ne dañuy fas yéene xeex ak ñun mais on s'en fout de ça on est là on pour le combat pour la guerre ay let's go guys loolu la ñuy mën donc ñu ngi remercier Mbacké di big up waa Mbacké di leen wax one love and respect vraiment ay jàmbaar lañ ay góor lañ ay garme lañ il veut libérer ce pays là kon Mbacké restera dans l'histoire de la révolution sénégalaise taxaw nañ jaayante nañ joxe nañ seen bakkan boobu ba léegi ñu ngi taxaw di reyante ak di xeex kon let's go guys yes I big up Mbacké one love Mbacké big up Mbacké yeah man mes soldats let's go guys ayca ayca ayca ayca ayca xare Mbàkke heure bi ndakaaru njaay waroon na taxaw parce que instant yi xeex bi armement yu Macky Sall yore woon yu ci bare bare bare yóbbu na ko Mbàkke kon heure bi bu fekkoon dakaar génn nañ rek day def effet bu garaaw parce que duñu leen mun a maintenir contenir il faut que ñun bu ñu buggee xeex ñu xeex mais ñu Mbàkke xeex bàyyi ndakaaru heure bi bu dakaaru defoon rek benn benn pas rek benn pas vers la révolution rek ñu am ndam parce que instant yi lépp luy euh, armement lépp luy presque quatre-vingt-dix pour cent yëpp ñi ngi mbàkke lépp ñi ngi mbàkke yóbbu nañ blindé ya blindé yi bëri bëri bëri yóbbu nañ ko mbàkke pour gendarme yu bëree ngi mbàkke police bu bëree ngi mbàkke yëpp xam nañ ni mbàkke département la bëriwul ay police ak ay affaire donc lu fa nekk yëpp ndakaaru leen jóge ak yeneen région yi donc fu nekk ni Dakar est vide Dakar est vide jamono ji bu ñu génnoon tuuti rek def repli rek sànni pëne rek ñu am ndam parce que au moins tuuti ñooy génn foofu noonu pour fas yéene xeex ak ñun mais malheureusement noonu la ñuy toog di xool di seetaan waa Mbàkke au moment où ñoom tam dañoo waroon génn mu amaat au moins foofu tàkk ñu briquet almet pneu essence taal biir Dakar nga xam ne kenn duñu mën a téye lool mun na indi te Dakar bu bu yëngoo rek région yëpp dañuy yëngu lool mun na déclencher une révolution parce que war trop c'est trop terminus la ñu toll Ousmane Sonko mënul fi nekk mënul def marche mënul def rassemblement mënul def meeting mënul wax ak jaam ñu jàpp ko coincé ko tànc ko toroxal ko jàpp ay militants di leen gazé vraiment sénégalais yëpp war nañ mun a jóg taxaw rayante rëpp taxaw rayante donc waa Dakar def leen dara waa Kaolack def leen dara ne région yi jóg ne région yi wane seen bopp na région yi yëngu parce que ci la bokk nañ bàyyi toog di seetaan ñun ñëpp ñun ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ci front bi nañ bàyyi toog di seetaan kon na ñëpp yëngu na ñëpp yëngu fépp fu waay nekk jóg leen taxaw ñu xeex jóg leen taxaw ñu xeex li nga xam ni moom mooy euh, Euh, injustice bi nga xam ni Ousmane Sonko en tant que sénégalais mi ngi koy subir Ousmane Sonko en tant que citoyen sénégalais mi ngi koy subir nañ jóg xeex ko dama ne képp ku xeexul injustice yow euh, jaam nga képp ku xeexul injustice do nit képp ku xeexul injustice bu ñuy teg Ousmane Sonko en tant que nit loolu kooku man mun nañ jàpp ni doo nit deretu gor dawul sa yaram donc képp kuy gor bépp épris de justice nañ taxaw xeex injustice guys nañ xeex injustice kon ni ko Mbàkke di defee na dakaar Dakar defee na ko Jurbel defee na ko Kaolack defee na ko Louga defee ay ca ay ca ay ay ay ca gaay ay ca gaay ay ca ay ca donc bu ñu toog di xaar Ousmane Sonko Ousmane Sonko nee naa leen c'est très facile la police inter intercepté ko intercepté convoi bi téye ko donc mais moment boobu noonu na dëkk bi tàkk na dëkk bi yëngu au moins gouvernement Macky Sall day yëngu gouvernement Macky Sall day arrière kon aca guys respect à Mbacké vraiment je suis fier de vous content de vous ak sama boy bi nga xam ne moom tam def na fi live léegi léegi léegi nekk au front donc gars yi encore une fois ñi nekk au front nañ leen may ndox nañ leen may doole nañ leen may kattan nañ leen may pouvoir nañ leen encourager nañ leen galvaniser ñu nekk ci front bi buñ leen tuutil buñ leen toroxal buñ leen wàññi buñ leen reetaan nañ gën a yokk fo jom nañ gën a yokk fulla nañ gën a yokk fayda ci xeex bi xam ne xeex pour la libération la xeex pour la libération xeex bu ànd ak donc yéen ñëpp ñi nga xam ni ay gor ngeen ay garmi ngeen nekku leen fa dalee leen encouragé dalee leen poussé au gou dalee leen jox force dalee leen tàccu dalee leen galvaniser loolu moo ñuy may ndam donc les gars on ne peut pas on peut arrêter un révolutionnaire Mais on ne peut pas arrêter une révolution. On peut arrêter le convoi de Sonko. On peut interpeller, intercepter le convoi de Sonko. Mais on ne peut pas arrêter les révolutionnaires de Mbaké. On ne peut pas euh, vraiment on n'arrête pas la mer avec ses bras. Donc, Herbide continue, guys, qu'ils arrêtent le convoi de Ousmane Sonko. Mais le peuple mbakois euh, ou Mbaké est debout. Le peuple Mbaké, euh, Nigetahaou, face à l'oppression face à l'injustice subie par monsieur Ousmane Sonko ñu taxaw di reyante pour libérer le peuple sénégalais big up Mbacké big up one love Mbacké come on man ayca ayca ayca ayca yeah briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet un uh. yee guys nañ dem de nañ dem de yee maan billaahi bu ma mënoon nekk seen wet ma nekk seen wet wallahi la azim un combat de la libération xeex xeex contre cette dictature man j'aime bien I love that shit xeex ak doomu aadama man xeex ak nguur moo ma gën a loo gis bu may xeex ak nguur damay kontaan sama xol day sedd damay am mbégte damay xam ni maa ngi xeex ak damay xam ni maa ngi xeex ak iblis damay xam ni maa ngi xeex ak ay kaafiroona man day xeex ak sénégalais xeex ak gouvernement moo ma gën a loogis gis parce que man c'est mes pires ennemis c'est des gens yoo xam ni ma reyante woon deflu ne pour ñu toog fi ñu ñëw trahir sàcc sama alal toroxal sama askan donc man xeex leen moo gën xeex ak sénégalais donc man sama xeex du xeex ak Abdoulaye Wade du xeex ak Abdou Mbaye wala xeex ak Abdou Diop wala xeex Abdou Abdou Wade wala xeex Issa Ndiaye man sama xeex mooy xeex Macky Sall te xeex Macky Sall ba dee jar na mat na jaamu yàlla kon nañ xeex nañ xeex buñ bàyyi Macky Sall ci jàmm buñ ko bàyyi ci salaam moom ak ay nooxóoram ay dëmmam ay dëmmam ay jinneem ñi nga xam ne dañoo taxaw ne par la force dañuy toroxal par la force dañuy rey par la force dañuy néewal doole nañu bañ injustice nañ xeex injustice guys loolu moo ci am solo combat bi nag du ay combat de principe la du ay combat doomu aadama ndax doomu aadama bu doon loolu la rek kon kenn du fi dee ndax benn doomu aadama jarul xeex mais combat pour une nation la loolu la Mamadou Diop def ba jóge fi loolu la ki nga xam ne mooy mum ah, Mamadou Dia def ba jóge fi loolu la Blondin Diop def ba jóge fi loolu la Sankara def ba jóge fi loolu la Lumumba def ba jóge fi loolu la ki Kenyatta def ba jóge fi loolu la Cheikh Anta def ba jóge fi et cetera et cetera donc kooku bu fekkoon ay nit kese la du xeex mais day xeex pour une nation ndax nation boobu noonu ñi fi nekk danañ dee ñeneen jógaat ñeneen ñëwaat ñeneen ñëwaat donc on continue le combat les gars on continue le combat bu ñu bàyyi face à l'oppression li nga xam ni population bi ñu ngi koy subir yeemaan du yàgg dama def live rek pour soutenir le peuple de Mbacké à continuer ce combat là et que aussi le peuple de Dakar le les les jeunes de Dakar a sortir massivement dans les rues à occuper les rues et à dire non aux, forfaitures, à dire non à la dictature civile et à l'oppression, à l'injustice. Donc j'appelle le peuple dakarois et tous les, toutes les régions euh, du Sénégal de se lever, d'être de, debout et de se rassembler pour euh, xeex li nga xam ne moom mooy injustice xeex li mooy li nga xam ni mooy dëkk bi nga xam ni dictature moo fay daw donc bu kenn toog na ñëpp génn na ñëpp taxaw na ñëpp wane seen bopp na ñëpp fàtte ay seen ego te jóg xeex pour ce peuple ndax Sénégal mérite na ko la nation mérite na ko ndax une patrie se compose de morts qui la fondent et des vivants qui la continuent donc gars yi nañ dem focus encore si xeex bi nii man tout à sama boy bi nga xam ni maa ngi ko doon orienté dafa sonn mu ngi dem lekk tuuti ñëwaat demaat au front dañuy continuer chaque jour comme nu ma leen koy waxee nekk ci ligne bi di leen wax les stratégies bloc bloc dajaloo bu ñu nekk ci ginnaaw bu ñu sànni nañ tafoo nañ tasaaroo ci koñ yi daw lateralement bu leen daw rek nii xëbal xëbal yi da leen daw pour mun a jàdd boo leen jàddee bu leen continuer taxaw leen ñaari loxo ñaari xeer donc léegi-léegi gars yi ñu dem focus ci suñu combat bi nii ba am ci ndam incha allah et Macky Sall va reculer par A par B ndax munu fee nekk di buuma ko bummi sàcc sañu alal tasaare ko ba pare def lu ko neex ne kenn du fi génn ne kenn du dox ne kenn du xeex ne kenn du sëqët ne kenn du wax loolu duñ ko nangu tey te duñ ko nangu ëllëg ndax baayam moomul dëkk bi maamam moomul dëkk bi te ñun nag ay ginaaram nenuñu dinañ taxaw xeex ak moom ba ultime phase ba last bref incha allah kon one love guys ñu dem stay focus ci combat bi ndax combat de principe la combat de dignité la combat de libération la combat d'occupation la boo xam ne il faut ñu occuper les villes pour mun a gagner ce combat incha allah jaajëf one love à tout à l'heure peace